daan na mësul rusloo Benno Bokk Yaakaar drapeau bii nag de première édition drapeau Marème ñu ne suñu taxawaay mat na ci sëkk man en tant que coordinatrice su action pour le développement ànd ak Marème Faye Macky moom borom bés seen protection bii fu mu desit na ma gis ndax borom bés bi da koo jar ku ko jaral nag na nga yëngu suba yëngu ginnaaw suba ndax ku ne xam na ne du ay caaxaan mbir mi rax na concours plaidoirie boo xamante ni mbooleem ku xale buy kàngamu njaareen ci ngay feeñe te xam ngeen ne Marème du ay caaxaan mooy dimbali mbër yi mooy dimbali xale yi mooy di sawarloo dëkk bi kon nag da ngeen ko jàppale ba mu ba fu mu bëgg a yegg yàlla yeggawule ko fa te Marème xam na itam njaarim gi ay cuune newul bis bii war nañu bu seetaanee kaset bi xam ne njaareem ni fi Benno ko Yaakaar war a taxawee APR war ko fay taxawee ànd nañ booloo taxawee ko. yaakaar naa olof Ndiaye dafa nekk bu fekkee mbojj mi moo mën a wax ni dugub ji tollu yaakaar naa kii doon wax dafa fekkee lépp. ba muy metti Dame Diop jël ay dàllam dugg ci biir àll bi ba muy metti muy taw muy naaj muy sedd muy metti muy ànd ak Dame Diop moom yaakaar naa moo fekkee mboj mi moo mën a moo tax mu mën a mu mën a wax ni mboj ni dugub ji toll kon yaakaar naa tàccu leen ko bu baax a baax a baax a baax a baax kon bés comme ni ma ko waxee sànq dañuy introduire Serif Anxaana Fall moom bi nga xamante ne bii mooy coordinateur Pastef production mu waxtaan ak waa Kër Dame Diop waa Kër Cheikh ñu ngi leen di nuyu yaakaar naa ni bu ma commencé di nuyu du ma jeexal parce que récitation boobu ma jàngoon ba ma nekkee gone yaakaar naa ni valable na jàngoon naa ba ma nekkee tout tànk ci daara yu ndaw yi nga xam ne waroon nañ fa jaar ñu naan ici je suis waaye fii tamit je suis parce que fii laa fooye dimbalee fii laa fekk baax kon lu ma am si baax bu ma ko indiwul fii ñu xam ne du ma nit ku baax li am rek mooy benn affaire njaareem yàgg na di dox di soox sax laay wax président Macky Sall ñëw nisal fi ay liggéey yu am solo ñun ñu gëm ne émergence balaa moo nekk il faut que xale yi jël ko def ko seen mbiru bopp ndax li devient une force dès qu'elle pénètre les masses te ku bëgg a wax ak xale yi di nga jaar si sport war nga jaar ci culture te làmb dafa jaxase culture jaxase sport moo tax tey ñu dagale fukki écurie ak ñaar diggante Bambey Mbacké ak Diourbel tegal leen ñaar fukki nag pour rehausser la lutte au niveau de Diourbel mais pour fësal liggéey bu rafet bi nga xam ne le président Macky Sall mi ngi koy def au niveau national waaye rawatina au niveau régional yaakaar naa ni théâtre de verdure léegi ñu toj ko tabaxaat ko gis ngeen hôtel Baobab ñi ngi koy defal paradise kono ñi ngi koy defar tali yaa ngi dem bus yaa ngi ñëm donc président Macky Sall mérité na ñu delloo ko njukkal fii di njaareem mu am fee score yu mës a am fenn loolu nag su amee loolu su amee boo ñëwee ca dëkk ba comme sama mag ni mu ko defee boo ñëwee ca dëkk ba da ngay jaar ci bunt bi doo jaar ci fenêtre jaar nañ si bunt bi tey parce que suñu mag daan Diop xam nañ li muy liggéey tey si parti APR au niveau régional au niveau national sax laay wax ñu rafetlu ko encore une fois may woos Diourbel yëpp parce que dañ ko tëgg adduna ñëw fekk si ñu ndax Bantamba TV tey Diourbel la ñuy fanaan te Bantamba TV donc li ñuy jël fii yëpp Modou Mbaye Bantamba dina ñëw pour que ñu def événement bu mag man daal woo naa samay mbokk événement bi ëpp na ma doole diis na samay loxo pas nag ci jom pas ci fula paa ci finance wala dara mais ñëw bëgg gan bu ñu ñëwee fekk fi samay mbok samay magasins yi samay rakk du ma lim kenn sax. Eket Ngom mënuma ma koo bañ a lim Cheikh Fall Omar Boye ñoom ñëpp laxasaay nañ donc njaareem daal ñu ngi leen di xaar le 2 ak le 3 stade Elimanel Fall pour que ñu def fête de la lutte au niveau régional je vous léegi nag du ñu def rek lu dul xuus ci biir waxtaan bi ñu jox kàddu gi Ibrahima Diop ñu laaj ko moom bi nga xamante ne bii moo fi représenté monsieur Dame Diop yan sentiment ngeen am lan ngeen yëg ci bis bi nga xamante ne bii dippee na leen ko waa Pastef Production. dippee na leen ko ban sentiment ngeen ci am lan ngeen ci yëg. avant tout maa ngi nuyu ñi fi nekk ñëpp di sant di gërëm ñi fi ñëw pare ne daam manifestation bu toll nii euh, li lii ñu def nii ku mu doyul dara dootu la doy parce que wax bi li ci gën a am solo dëkk boo fa duggee ci bunt bi ngay jaar donc ñoom nangu nañ ni daam mooy buntu dëkk bi loolu rek déjà fierté la ci ñun sentiment bi ma am ci sentiment bi ma am ci manifestation bi nag mooy sentiment de fierté parce que le le promoteur lii mu def moom la war a def lii mu def nii moom la war a def defalu ko kenn boppam la ko defal parce que ku xam baayam xam ni li mu fi def dañuy ñaan ñun ñu def lu ko raw ce qui veut que ni moom ci boppam bu nekkee doomu Jurbel toog ba am ay initiative yu mel nii mënoon a mënoon a mënoon ko yemale Dakar mënoon ko yemale Thiès ah mënoon ko yemale feneen fu gën a naat Diourbel mu ñëwaat fàttaliku ni Diourbel la jógee fi la fooye fi la màggee la juddoo donc vraiment sentiment de fierté lañ am ci moom quoi mooy Fall Fall mii le promoteur. Chérif Chérif at at xanaa ah. waaw vraiment li mu def nii c'est une fierté pour vraiment lii moom euh, ñëpp a koy rafetlu parce que fi mu affaire yi dafa demee noo xam ne ni tey ku nekk mën ngaa yem sa bopp la nga yor nga yemale ko sa bopp mais lii mooy esprit de partage lii mooy esprit de solidarité donc Macky Sall lii la soxla ay nit ñu mel nii la soxla parce que daf leen di laaj souvent ñuy dellu ci seen base parce que nit ñi aussi foog ñu am esprit bu mel ni bi Fall am di dellu ci seen base la jële fa la ñuy ñëw di ko bokk ak seen i mbokk parce que politique bonut politique c'est l'art de la société donc nit ñi lu mel nii li mu wax nii sport ak culture ci nga mën a jaar pour am ndaw ñi sport ak culture ci nga mën a jaar pour am nit ñi heureusement qu'il l'a bien compris. Dame Diop kàddu yi am na solo ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di kontaan ci yow mu mel nii suba bëgg naa ngeen wax ma nan ngeen di waajee suba lan ngeen di wax waa kër Cheikh Ibrahima Fall fii nga xamante ne bii fi ngeen dëkk na mobilisation bu am doole ngeen di ànd yaakaar naa lan ngeen di non man ni ma gisee affaire bi fi mu nekk nii doonatul affaire u Arxaana affaire u la dafa am un produit un projet mu andi ko teg ko Jurbel ñëpp ci war a jàpp moom normalement moom waratul sonn sax parce que lii muy def nii ñëpp la ko defal donc je pense que ni mobilisation warul yem sax Kër Cheikh tout Diourbel doit se mobiliser derrière Fall pour que euh, sa manifestation là ait une parce que ñaar fukki nit comme li ngeen ko waxee du ay caaxaan mënoon na ko yemale ci boppam donc bu ko andee fii ñëpp dañ war a jàpp jàppale ko en commençant par les leaders politiques na ci ñëpp dugal seen loxo parce que loolu la c'est ça. xamante ne bii développement Diourbel rek moo ko ñor di xale ba nga xamante ne bii li nga xamante ne bii mooy njëriñu Jurbel rek moo ko ñor organiser lamb ju am doole jooju jël kii di professeur Alpha Kunta boole ko ci pare yi professeur am Alpha Kunta ku ko xam xam ne nit ku baax la ku ko xam xam ne nit kuy dimbale néew si doole yi la ku ko xam xam ne nit ku yaatu la ba tax na dégg naa fii ci Grand Diourbel tabax na fi école maternelle bu yaatu tabax na fi école maternelle bu am doole te yaakaar naa loolu ndimbal la ci xale yi ma bëgg ngeen tàcc loolu bu baax a baax. yëg bu lekkee olom na ko gërëmee cooy premier événement bu mu tëgg làmb fii stade Elimeleen Fall teg ay nagi nag assisté woon naa yooyu jour boobu yëg naa lu doy waar koroog laa xam ne deret moo neex ku am jom bëgg njaareem dara ñoru ko loo xool ci moom gis ko ci Ndella Fall waaw di euh, remercier passage bu fi caravane bi jaar man nag euh, damay wax ci turu Alpha mais du yomb parce que moom moo doon gën a mun a waxal bopp drapeau bi première édition drapeau de première dame duñ ko ci euh, parrainé daf ñuy neex waaye di ngeen gis nag euh, suba ak ginnaaw suba lu dara jaru ñun rek waa Grand Diourbel ah ci mobilisation ah dara du doy kontaan nañ nag cër bi daf ñoo ñor ñor nañu saf nañu Mbaye Babacar nga may ma rek mu nuyu sama rakk Sow bi fii jaar sànq wax ay kàddu yu rafet je pense que li ma dégg léegi dafa daw sama yaram comme Jo wax na daw yaram ma àbb ko expression boobu pour exprimer li ma yëg léegi nii parce que dama gëm ne dëkk ku ko bëgg tabax da koy teg ci xam-xam donc professeur Alpha bu fekkee ne dafa nekk un professeur à l'université ñëpp xam ko mu ne damay dellu sama dëkk tabax ndaw parce que tabax ndaw mooy defar réew mu tàmbalee ci école maternelle loolu dañuy def lu rafetlu ko di ko delloo njukkal di ko wax ne ko ñun de ci bis bi bëgg nañ mu feeñ ci ndax président Macky Sall la ñuy njukkal ci li muy def Marème Faye Sall la ñuy njukkal ci li mu def di ci woo responsable APR yëpp di ko si xaar bu soobee yàlla bu bëgg mu am ci visibilité boo xam ne su ko am fii si njaareem ñu assuré ko bu soobee yàlla. production jërëjëf euh, Chérif ñoo ngi leen di sant di rafetlu tamit euh, lii tamit ngeen ngeen dippee ñu comme ni ko Chérif waxee Chérif sama frère la am na li nga xamante ne dama ko seet ak Cheikh Fall Cheikh Fall di sama mag mel ni bi mu bokk ndey bàyyi donc Chérif su xew xewlee dafa mel ni tamit man maa xewle donc euh, damay ñaan tamit ñi ma nekk nii muy sama waa mouvement ak sama waa koñ bi yëpp nay leen mobiliser wu suba ak gannaaw suba ñu dem taxawu Chérif taxawu Pastef Production te que le yi gagne yaakaar naa ni dama doon wax sànq ci Pape Abou Camara far Moustapha ñëw indi preuve dama doon wax sànq Pape Abou Camara par rapport à sa crédibilité au niveau national xam nga kii il est directeur heure bii bu jugee fekk si Pape fii c'est parce que am na fu mu teg Pape waaye ndekete olof juumul montre yu baax yi ñoo bokk heure montre yu baax yëpp ñoo bokk heure ci nag su naree neex su baxee de xeeñ man njaareem amatuma ci crainte parce que j'ai vu de nouveaux types de dirigeants dama gis ay leaders yoo xam ne ba jàng jotee jàng nañ fi leen juddoo kenn gënu leen si dëkk bi ba pare ñu jox boole ci yar boole ci disponibilité boole ñu woowee ñu njël amal njëriñ waa dëkk bi bi ngeen teg seen tànk foofu la ko tegul njaareem yëpp ngeen ak yéen ca foog naa ne loolu laa ciy def ba ñu naa ni per ngay du yomb eh, eh. Euh, maa ngi leen du nuyu yéen ñëpp ku si nekk sa ak sa sant Chérif maa ngi leen nuyu di la féliciter vraiment lii dafa rëy euh, je sais démb yaa ngi woon Dakar am liggéey bu am solo boo xam ne sa ay naataango dañ la ko dénkoon nga représenté leen woon si jataay bu am solo nga jóge fa ñëw fii daf lu mel nii vraiment lu rëy la ci mag donc je pense que lu ñuy wax leadership am nga ko lu ñuy wax euh, esprit d'organisation am nga ko te derrière cet événement on sent beaucoup de compétence mais aussi de cœur et de générosité donc vraiment ce ne pas des paroles en l'air maa ngi lay euh, remercier encore une fois mais de le féliciter parce que je sens toute une organisation derrière cette caisse là et je sens vraiment beaucoup de générosité te loolu vraiment amul lu koy maa ngi lay féliciter dina la encourager di wax ne vraiment li ngay def noonu la donc participer à l'animation culturelle de Diourbel à son animation scientifique également parce que c'est de ça qu'il s'agit également je pense que intellectuel ñu mel ni yow ñi nga xamante ne ils ont une haute intelligence ñoom ñoo ko mën donc yaa ngi xàll yoon bi te xam naa ne incha allah xale yi dinañ ci topp donc maa ngi lay féliciter di la encourager di nuyu suma xarit Cheikh Fall moom mi nga xamante ne wax dëgg yàlla bu ñuy ànd ba léegi mi ngay liggéey liggéey bu mucc ayib maa ngi koy nuyu di ko félicité di ko encouragé di nuyu également Pa Abou Camara si leadership am parce que am na ko moom itam gis ngeen bërki démb lu am solo li nga xam ne daf na ko fi fii si quartier Cheikh Thierno Kandji mu nekk lu rëy loo xam ne wax dëgg yàlla cuune wala como mun donc moom itam jàmbaar la maa ngi nuyu spécialement sama sœur Ndella euh, Ndella Fall lu mu wax dëgg la maanaam ñoro ma keneen ñoro ko ki nga xamante ne moom moo ko mooy xaritam da wax dëgg yàlla kooku rek moo jar ndax dafa nekk jigéen joo xam ne référence la Sénégal parce que taxaw taxaw temm nekk sa wetu jëkkër di ko jàppale di ko dimbale di ko encouragé ba yàlla jël réew mi teg ko ci ay loxoom vraiment loolu jigéenu fëkk dem moom moo ko mën jàmbaaru fëkk dem donc yow foofu nga jàpp je pense que foofu nga war a jàpp donc yoo yaa am dëgg ndee la chaque fois damay dégg ay wax ci biti mais ndee la dafa nekk muso boo xam day ñëw ñëpp xam nañ ne affaire dafa yàgg mais ndee la foo ko fekk rek je me rappelle très bien la première fois bu ma ko gisee dafa ñëw sama bureau fekk parti bi am ay problème boobu laa ko njëkk gis mu ñëw sama bureau ne ma Moustapha Kane parti bi am na lii am na lële mais damaa bëgg nga defee ni lépp nag nekk lu baax nga defee nii defee ni la dama ma xoolee mbir mi wax dëgg yàlla après quelques mois dama xam ne tànk yu mu taxawoon rek tànk yooyu laa waroon a taxaw mooy tànku puso buy ñëw te ndee la vraiment ku doxee ku dox noonu ngay doxee ku doxee yooyu noonu tamit yow noonu lu am solo lu am solo je pense que parti bi su ñu amoon juróomi jigéen yu mel ne Ndella juróom sax ëpp na ñaar wala ñett rek kon waxuma la ñu gagné Diourbel mais toutes les régions du Sénégal te comme lu ma wax Chérif doon ay paroles en l'air lu ma gëm la je pense que il nous faut véritablement des gens comme Ndella Fall ñi nga xamante ne ils inscrivent leur action dans l'unité mais également dans le rassemblement de toutes les forces de l'appel de la coalition Benno Bokk di gërëm Chérif Alxaana di sant Pastef production euh, Chérif def naa benn yoon lañ gisante man ak yow kër euh, Cheikh Fall sa frère ci benn yoon gis naa ci yow yar gis naa ci yow teggin gis naa ci yow Pastef gis naa si yow professionnalisme moom la wolof di wax xarañ defe naa su ma la ñëwee ba naan deena na ñëw fii ñeenti qualité yooyu ma gis yow moom moo tax alors yow na dañ la war a jàppale def naa waa Njaareem yëpp la war a jàppale ndax def naa li nga fi def raar na fii ñun waa Njaareem dañu bàyyi suñu région ñeen di fi ñëw di def leneen wala ñeneen def leneen feneen ñun ne dafa mel ni waa Njaareem bëgguñu dara war ñeen defal lu mel ni fii édition Marème Faye fi lañ ko war a njëkk a defee Marème doxee ba daje ci mbedd mi Bamba war na wax ndax man maa ko yar mu yaroo suma kanam mu nekk nag première dame nekk sunu soxna kon nag ñun dafa nekk sunu fierté ñun doomu njaareem toog ba nekk première dame dañ ko di tiitaroo daal kon bu dee bu ñu tuddee ko drapeau indi ko fii ci njaareem ñun ñëpp ñoo ci war a dugal sunu loxo et incha allah yi ñun lépp luñ ci mën incha allah suba di nga ci xam dara li ma la mën assuré moo ñii fi nekk moom ba dinañ ñëw suba ba pare boole na ñeneen ñu may woowaat encore pour ñu ñëw suba. alors may sant Cheikh Fall mi tax ma xam la moom laa la fekk këram muy moo tamit suma rakk ju baax wax dëgg yàlla ñu euh, seq lu bari seq teraanga mu may woo ma koy woo ñu seq peut-être ay euh, waxtaan yu bari ñuy dox ci wàllu politique. di gërëm nag soxna Ndéla Fall dafa am ku nekk ci sa mouvement ñu koy wax ma euh, Rabiatou Kamara ñaa ko laal yoon de Kër Cheikh mais man defe naa nag ni Ndéla Fall mi mooy la lion de Diourbel. ndax koo xamante ni bii dara nekkul yow yaa fi nekk di wax yaa ngi defar yaa ngi woo leader yi yaa ngi dox guddi yaa ngi dox bëccëg bamba kii la bu ñu demee gis ko xëy na président dafa am doole bamba kii dafa nekk PDS dama wax ak moom bamba kii dafa nekk réew mi dama wax ak moom defe naa yow bu ñuy wax leader fii wax dëgg yàlla yow mii yaay leader bu